aasubillahi min asheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim baa bun lii bunt la fii sax wi ci juum ñoo ko jamaj jamaj mooy juum wa sujoodu sax wi sujootab jama sujootab juumte fii salaati julli sunnatun sunna la fali noqsaani ñeel na wàññi boo wàññee ci julli gi te du farata nag loolu la ñu waroon a ci àgg waaye farata moom kenn mënu ko sujjootal sajda daan ñaari sujjoot xabla salaami balaa ngay sëlmal baara mi tasaw dina gannaaw boo matalee ñaar taay nga taaye ba mu pare nga doog ko sujjoot yësiidu dana ko dolli dana dolli kon baa dama maa gannaaw ñaar taay ba tasaw daa da nga tasaw daa maanaam gannaaw ñaar ñaari sujjoot ya tasawudun taaya aaxara beneen su fekkee ne dafa wàññitey tey masalan faatiha xam nga kon faatiha farata la sunnaam ba nga koy bi maa naa taxawaay ba nga ko doon def farata la léegi nag kon boo wàññee faatiha bi sa xel daj ko balaa ngay laat sëlmal ngay toog taaya ba sa taaya bi bëgg a sëlmal nga sujjóot ñaar sujjóot allahu akbar jóg allahu akbar jóg taaye tuuti ne asalaamualeykum noonu ngay defee boo wàññi euh, wasiyaadatu boo dollee nag sëjdataani ba tey ñaar su jot la waaye nga ko demoon ba da salaam yi gannaaw boo sëlmari naka tey nga daal di julli woon ñeenti ràkk ci julli ñeenti ràkk nga pare au lieu nga toog taay nga jóg taxaw soo teqale koo doon suuf si kon da ngay toog rek da ngay toog rek doo sëlmal doo taaya doo sujjóot waaye soo jógee ba taxaw sa xel dañ ne eh man sama julli gi pare na nga dellusiwaat kon dangay dikk taaya ba ne asalaamualeykum su paree nga ñaari su def ñaari sujjóot taayatu sëlmalaat noonu mooy baax de salaam boo wàññee. sujjóot ya ma ngay def balaa ngay sëlmal balaa ngay balaa ngay balaa ngay sëlmal soo yokkee ngay toog ba taay ba pare sëlmal doo ko def yëta sëhatu dina taay nag baadahuma gannaaw seen ñaar wayu sallima mu ta mu sëlmal taslimatan sëlmal uxraa beneen bokkut ak bu njëkk ba dina sëlmalaat nag boobu beneen étape jeex benn wax jeex ñu demaat beneen wax wa man naqasa ku wàññi wasaada mu dolli léegi ñaar la borante wàññi na ci julli gi yokk ci julli gi masalan tey wàññi naw saar ak taxawaayam bañ dikkee rakkab ñeenteel mu au lieu mu toog ci mu continue def di rakkab juróomeel kon ñaar yëpp wan na ko nu mooy def sajjada dafay sujjóot qabla salaam yi balaa masalam kooku mu qabla salaam bi lay noteel maanaam dangay toog ba nga xam ne yaa sa taay bi jeex na nga sujjóot ñaar sujjóot jog taaya doog a wax jooju jeex woo na sie ku fàtte ak sujjóot sujjóot alxabliya bi nga ne moom nga waroon def balaa ngay sëlmal mu waroon def ah, sujjóot balaa muy sëlmal ah xataa da nga ba mu sëlmal fàtte na ko fàtte ba ne asalaamaaleykum nu muy def sa jëre def koy sujjóot in kaana bu nekkee xariban da ko jege fekkee ne fam jóg na ba ba e eh, man daal del sat jàkk ji sujjóot wa in taala bu yàggee dem na lu yàgg xelam dëj ko aw xaraja wala mu génn minal masjid ci jàkk ja batala dafay yàqu ak sujjóot sujjóot ba su ko defee boo wax wa tabtul dafa yàqu ak salaatu julli maawu ànd ak moom inkaana bu nekkee ala salaasi sunna ñetti sunna bu dee ñetti sunna la bàyyi booba kon ju judd su jot bi yàqoon dafay julliwaat kon nag mooy li ma la wax ne kon nag waxoo waroon wax ne kon sunna la xam nga dafa ne su jot euh, sawi su jot jabat sunna la waaw léegi nag loo xam ne moom boo ko defoon sa julli yàqu kay kon foofu farat la fa mm-hmm. <laughs> ah, foofu farat la moom kon nag naka tey <clears throat> euh, ku bàyyi woon saar wi sunna la taxawaay bi nga ko jàng sunna la yoon yoon la walla wax ci kaw gi nga ko def sunna la kon ñett yi nga boolente bàyyi ah aw ak sara walla ko gën a bari misaal walla mu demoon def ko ci ñett moom lu ëpp ñett ñetti su ñeenti ñetti la ñeenti sunna kon julli ga yàqu na sujjóot ba mënatoo ko def wa illaa su fekkee ni matul ko falaa tabtalu du yàq julli ga bi maanaa kon daf koy bàyyi noonu gannaaw ñaari sunna rek la wala benn sunna jarul nga ko sujjóot te yàqu sa julli wa man na ku fàtte a sujjóot a sujjóot nag albahdiya sujjóot boo xam ne yaa def gannaaw boo sëlmee ne ndax da ngaa yokkoon sa jëdoo na sujjóot walaw baada amin donte gannaaw at la yaa toog ba tey man de sama julli gi ma julli daaw waroon naa def sujjóot ak salaat sujjóot gannaaw bu ma sëlmalee sa xel dañ ko tey sujjóotal fa nga toll rek euh, sujjóot ko man mu ngi koy def moom moom mu yàgg-yàgg da ko def bari nag bu paasee moom da koy bàyyi bu nga xam ne mu nga waroon def lu jiitu sëlmal waman naqasa ko wàññi faridatan lu xam ne farata la naka tey faatiha farata la taxawaayam farata la dégg nga taxawaay farat la rukkoo farata la sujjóot farata la toogaay farata la sëlmal farata la ku ko wàññi falaa yu siiwru ko doy ak sujjóot sujjóot ana ci moom kon sujjóot mënu ko doy mënu ko def mënu doy kon nu mooy def daf koy defaat xam nga loolu loolu la waroon wax fii kon kon nag gannaaw gannaaw sujjóot du ca doy nu muy def daf koy fay loolu boo dee moom kon tey ku bàyyi benn rukkoo ci ab ràkk da xam ràkk bi yëpp yàqu na ñetti ràkk nga jullit ñetti ràkk nga am ngaa jóg indihaat man laa dem rek def rukkoo ba dem da ngay jëlaat indihaat beneen ràkk su ko defee mu pare nga sujjóot ba des la nan nga koy defee léegi moom boo wàññee benn farata ci biir biir rakk bi rakk boobu yëpp ngay sànni nga dikk julliyaat beneen rakk boo xam ne moom lépp ngay indi soo pare na nga doog a def sujjóot ba'da salaam euh, moo tax fii dafa am yu muy bàyyi yoo xam ne yooyu soo ko bàyyee noonu euh, njàngale ku ni rek dina am loolu dégg waaye wa man naka su ko wàññi al fadaailu nga ne loo xam ne nga ne la rek ci julli falaa sujjóot day tuddee ànd ko war kooku dara ko ci naka ay xunóot ak ay yu demee nag noonu wala yàkkoonu du nekk ak sujjóot sujjóot alxabli yi sujjóot boobu nga xam ne moom nga war a def balaa ngay sëlmal doo ko def illaa li tarki sunna tey ni lu mooy dangaa bàyyi ñaari sunna fa aksara wala lu ko gën a bari su fekkee ne benn sunna wala lu ko gën a bari moom nga bàyyi boobu nag ci ngay defee sujjóot bi nga xam ne mooy sujjóotu xam ne kii dafa a jafe de da ko dafa soxla seetlu bu baax a baax